tey lii indi sunu teewaay fii muy njabootu Lat Diop au niveau national bala maa commencé wax damay présenté ñi nga xam ne ñoo sekk Lat Diop au niveau national coordinateur u ngi nii taxaw coordinateur u ngi nii taxaw coordinateur u Dakar ngi taxaw coordinateur u Golf Sud département bi Guédiawaye ñëpp ngi fi au niveau national waa kër Lat Diop ñu ngi fi présidente yeeg coordinateur yi ñoom nga gis fii njabootu Lat Diop yegg seegunu ndax Lat dafa am lu mu représenté ci réew mi Sénégal daf ko war a delloo njukkal ni ko jërëjëf Lat ci li nga liggéeyal Sénégal mais Lat méritoowul ñu koy téye ci ay déformation ak ay liquidation politique ñun xam na ni xew ci réew mi ndax boo jiinee nit da ngay indi ay preuve teg kayit yi wane ko nga signé waaye maani la rek loolu su fekkee ni maani la moo tax léegi ku nekk ñu lay téye kon réew mi ñun ñëpp ñoo ne en danger on est là pour qu'on nous libère Lat Diop libérer Lat Diop laa wax dañ ni Lat Diop libérer Lat Diop libérer Lat Diop liberté liberté parce que nag réew mi réew mi vous êtes témoins sénégalais yi laa wax le senegale yi nga xam ne réew mi ñor na leen vous êtes témoin ci lii nga xam ne mi ngi xew ci réew mi te lii su continuer réew mi dana yëngu te senegal ñoo ko moom ñoo ko bokk ñoo fi yor njaboot ñoo ko liggéey sunu maam yi liggéey ko fi dem yeneen régime ñëw liggéey dem keneen ku fi nekk da ngay ñëw dem kon nag nanu jaarale réew mi ci yoon te bàyyi te bàyyi gor yi ni toroxal gor yi ni jaay doole maa ngi woo kilifa diine yi sëñ Muntaxa yaay sëriñ Tuubaa ñu ngi lay woo ñu ngi woo sëñ Cheikh Saliou ñu ngi woo xalifa Tidiane ñu ngi ñu ngi woo église ñu ngi woo sénégalais yi nanu bàyyi lat mu ñibbi këram c'est un homme honnête un travailleur di un góor nanu dara ci réew mi neewuñu ko yaa sàcc fa nga nekkoon lat li mu defar réew mi sàccul dara ci réew mi état néew ko yaa jël dara benn ko xam ne da nga koo mere xanaa léegi réew mi ku mere nit yóbbu ko police xanaa léegi réew mi ku mere nit yóbbu ko kaso libéré Lat Diop bàyyi leen ko mu ñibbi këram. aussi ba ci réaction yi euh, jël keneen ki nga xam ne aussi moom euh, teew na fi pour. Euh, soutenir euh, ki nga xam na mooy Lat Diop ñu ngi leen nuyu sëñ bi tur beeg sant bi ak fan nga jógee ak fonction bi waaw ñu ngi leen di fay ñu ngi nuyu ñëpp euh, man maay jëwriñ Cheikh Ndiaye maa ngi dëkk parcelle euh, li ñu fi indi li ma fi indi moo fi indi ñii ñëpp affaire bi lu simple la nekkul loo xamante ne nii lu lu kii la problème la personnel Lat Diop amul benn jafe-jafe ak réewum senegal Lat Diop guddi ñu toll nii état bi bu fekkoon ñoom li ñu doon wax ci ñoom dëgg la ñoom li ñu doon woote dañ ko waroon woo taaj ko honoré ko parce que benn nit koo xamante ne nii ba senegal de senegal ba tey ñu ne la kii mel ni moom la banque mondiale musu remercier Lat Diop li mu def ñëpp teg nañ ci seen bët nekkul temps du duñu ko may ñu fi nekk naan lii la ak la ca des la mais l'essentiel daal ñu Sénégalais ñëpp nañ ànd maase xam ni Lat Diop amul benn benn benn jafe-jafe ak senegal mboolem kuréel yi nga xamante ne nii ñoo ŋànk di saytu alalu réew mi ak yu mel amul kenn ku ko ku ku tudd sax lu ndurul lat amu ci lii benn nit la boo xamante ne nii da fay vingt million Lat Diop gis na ni kii dafay détourner xaalisu Sénégal yaa ngi dégg day détourner xaalisu Sénégal mu teg ak xarañteem teg jumtuwaay yoo xamante ne nii moom li muy li muy am lépp mu koy xam mu xam li ci Sénégal moom mu dox loolu kooku mere ko ci loolu tëkkuwoon ko foofu lañ toll beneen bi keneen ki nga xamante ne moo nekk ci ginnaam te ñun ñëpp ñu xam ko mu koy jàppale neewoon na ko suma ma gañee dinaa la tëj kon ñaar problème bi ñaar ñii la Mouhamed Dieng Ousmane Sonko ñaar ñii képp la du keneen Ousmane Sonko moo nekk ci ginnaaw moo koy dooleel kee daw na def def na li muy def dem na yoram mais yow bu fekee koo xamante ne da nga ne da am ci moom lu leer foo jëm amoo foo jëm da ngay toog nga assumer léegi téye nañ ko fii amuñu lu ñu ko téye procureur doole ji ko Sénégal jox moom la wëlbatiwaat di ko xeexee doomu Sénégal boo xamante ni dafa servir réewam dignement parce que sañ-sañ bi mooy ñun bu ko neexoon fi ne mu fekk ñu fi ñun mu fekk ñu fii téema am na sañ boobu léegi sañ-sañ boobu la la utiliser jël doomu réewu Sénégal ku xeexal réewam liggéeyal ko bàyyi ko fii ci luñ tegul fenn kon Sénégal na ñëpp ànd maase xam ni Lat Diop moom gàcce ngaalaama fi mu toll nii suñ ko bàyyee ñoom échec la ci ñoom mais nañ ko bàyyi nañ bàyyi doomu jàmbur nañ bàyyi nit koo xamante ne nii nit ñi ñi yaakaar ci moom dañoo bari yaa ngi dégg koo xamante ne nii waxuma la père de famille li mu créé ci ay père de famille kenn xamul nu mu toll kon nañu bàyyi nit ki mu dem loolu nag ñu ngi ñu ngi ñun duñu xuloo duñu xeex mais li ñuy wax ci lu ñu xam lay doon ñu teg ko ci yoon dañuy duñu fi sànni xeer duñu fi toj kenn duñu sàcc alalu kenn neewuñ ci yooyu ay liggéeykat ñoo fi daje dañuy toog taxaw wax li ñu war a wax normalement leneen li ci des ñu dem suñu yoon kilifa yëpp ñu ngi leen di gis nañ am nañ appui yoo xamante ne mënuñu koo wax fii parce que ñu ngi ñu ngi ñu ngi ciy jàpp waaye tamit ñu ne luñ gën a jàpp doyul parce que dañoo bëgg toroxal ab as te loolu ñun duñu ko nangu waaw kon bépp kii bi loolu dong loolu ñu ngi tuub bu baax nag bu fekkee am na ci loo xamante Touba Touba Touba. Thiès Thiès Thiès sëñ bi yow tamit euh, wax ñu tur sant bi ak euh, fan nga jógee fonction waaw man maa ngi jógee ba Thiès euh, maa ngi tudd Mouhamed Diallo ñu gën maa xam si général waaye tey lu waralu suñu suñu teewaay fii dara waralu ko lu dul réew mi léegi dafa mel ni kumba am nday a kumba amul nday ndaxte nag. tey gis nañ koo xam ne dafa yàgg a sonal sonal réew mii di Sénégal muyoo la mayo ngir Sénégal Sénégal jëm sa kanam mu def ko lu ne mu jara ko lu ne pour Sénégal jëm sa kanam mu sonal réew mi tey kooku ñu dem ba nguur tey da ngay toog sa morom jël keneen ñëw ñu gis ni lii du lenn lu du nooteel ak jaay doole ndax xam na ni kii dafa yàgg bëgg Sénégal jëm sa kanam ñi nga xam ne nag ñoom bëgg Sénégal rek dellu sa gannaaw jaral leen lu ne ngir la Diop dugg si kaso bi yàgg nañ kaa wax la Diop naan ko dinañ la dugal si kaso bi ñee kee ba mais nooy arrêté nit nooy arrêté nit mënuñoo comprendre nooy arrêté nit ne bind ko convocation nit bindal la ko convocation ñu dem ba foofu mais mënuñoo am yow ki nga xam ne sax moom moo arrêté nit ki ñëwul sa teew nekkul présence loolu day wane ni loolu day wane ni lii daa am leneen leneen leneen lu nekk si ginnaaw te loolu nag ñun ñëpp ñoo ngi ko doon xaar na ndaxte nag ñi nga xam ne ñoo toog tey si réew mi doon nañ ko ko wax bis bu ñu toogee dinañ la dugal si kaso bi dinañ jaral lu ne ngir ñu dugal la si kaso bi te ñun nag ñun ñëpp nag dañoo amoon confiance ñun ñëpp dañoo am confiance si suñu justice su réew dañoo am confiance si ñi nga xam ne ñoo institution yu nekk si biir réew mi ñun nag ñoo ngi demandé solennellement ñi nga xam ne mooy kilifa diina yi jot na ñu jug wax ak ñii nga xam ne ñoom la ñuy dénk réew mi ndaxte réew mi mi nga xam ni dañ kaa sanc yàgg na du tey suñu maamee ak maamaati sëriñ si bu nekk def fi def fi ay ay ngir Sénégal tegu fi mu tegu ba mu yegg si fii dañoo bëgg Sénégal boobu ñoo ngi koy salfaañee Sénégal googu tey kenn xamatul fu mu jëm tey ñun ñëpp jaaxle nañ ndaxte jaay doole bi ñoo ngi koy gis tey ñoo ngi téye Lat Diop fii dara waralu ko lu dul nit ku ko xam ne daka kaa jiiñ kese ñu téye la te yow yaa ngi daw dem Europe su doon dëgg la da ngay teew su doon dëgg la da ngay ay preuve waaye amoo benn preuve tegoo ko fenn lii nootaa la nañu libérer Lat Diop libérer Lat Diop libérer Lat Diop libérer Lat Diop may la sëñ bi nga wax ñu tur beeg sant bi ak euh, fan nga jóge euh, ndombal tànk bi waaw man ñi ngi may wax Mamadou Faye dëkk Géejawaay bokk ci ñi jàppale la Diop ci liggéeyam au niveau de Géejawaay waaw mais sama teewaay fii tey du dara lu ak njàqare ak jaaxle ak tiit si sama bopp ak tiit si ñu dëkk senegal parce que réew mi ni muy doxee ay wëyu ak i bandi lañ ko seqal ay wëyu ak i bandi lañ ko seqal parce que liy wëyu ak bandi mooy dañoo toog ñoon avant ñuy tas assemblée bii ne yéen ñii bu ëllëgee doo leen ko tal ñàkk boobu ñoo xoon nag si loolu lañ commencé si loolu lañ nekk yëf yi bu ko bu ko féetale fenn wala nga koy wala nga koy natt fenn demeewu noonu nit xam ne am na mbooloo bu nekk si ginnaawam département Guédiawaye ñu xam ne kii bu demee ci élection législative yi jiite liste si Guédiawaye département Guédiawaye da koy gagné ñu bëgg koo sànq bëgg koo nëbbu pour mu bañ a bokk ci élection yi di ñëw loolu rek moo ko waral amul leneen lu ko waral mais loolu amul luñ ci lam-laamee parce que nit ki bu fekkee ne yow da war ay preuve lépp loo war gisoo ci dara nga wut benn maan yow taxaw ne ku yoole ñu fay la nga wut sa benn yoole maan ne koy weejel jël ay kër yu nekkul si lool bu dee loolu la ñuy jàppee nit ma xam ne réew mi amatul yoon mbéjum kanam nag borom moo koy fajal boppam kii nekk fii tey ma gis ko nit ko am jom la nit ko am courage la du ragal du tàppet te ñu ñuy ànd ak moom duñu ragal ñu tàppet li nag day soog a commencé lak ci boppam moo nañu woon bu kenn jël bu kenn taal mun naa ko gérer sama bopp mais ñu ñu ànd moom di ay gor ñu ne ko duñ ko bàyyi ak yow lii nag dañuy tàmbale fii mais yëf yi géejawaay la jëm ku ragal nag toogal sa kër ñaanuñu njëkk ñaanuñu teraanga ñaanuñu dara dañoo bëgg Lat Diop ñu bàyyi ko bis ni ki tey mu dellu këram si njabootam sans condition loolu lu ñu laaj laaj ñu dara lu loolu leen lu ci am nag luñ bëgg ak noonu dana lañ ci fekk parce que duñu ragal du ko ñuy woo ngay wooye xale naan taal leen du ko ñu woo ngay daw di laqatu sa dëkk Lat dawul laqatul bañ ko wooyee moo ñëwal boppam ku ne xam na ne samedi boo ko convoqué nit amul leraloo si jublu loolu pour sànq pour tëj ko mais boo xoolee kii kii ma gis tey gaynde la gor la du daw du koy yuuxu woowul kenn li ñuy wax nag mooy à partir d'aujourd'hui suñ plan d' action danañ ko tàmbali te nguur gi dana xam ne séq na ko ñu mu ko war a séqal ay tappalekat ak i sàcc ak ay tappalekat ay trian bu fekkee loolu ñu bi bëgg a ndax nañ seen bopp juum nañu fii képp ku fi taxaw doo tappet képp ku fi ñëw fii doo ragal loolu laa bëgg ñu xam ko da def ko seen bopp loolu laa laa yemale kaddu gi fii ak ngoon bu fekkee bàyyiñ ko mu ñibbi këram leneen luñ gis nañ xam ne ñun waa géej waay ñoo ko def incha allah wasalaam merci beaucoup voilà mu nekkoon Mamadou Faye nekk euh, waay donc taxawal ci donc mu ngi noonu déglu na waxam nga bàyyi rek wax ñu tur beeg sant bi ak euh, li nga xam ne moom mooy euh, ndombal tànk euh, man la Cheikh Pouy coordinateur des activités politiques bu président Lat Diop dans la dans le département de Mbacké. donc dégg nga li nga xam ne say collègue wax nañ ko tey fii ci mbirum Lat Diop ana lan nga ci yok bon xanaa am tiit am njaaxle et puis lii ça parce que dañoo am benni régime boo xam ne dañoo am régime boo xam ne régime bu nekk à stage la régime nag su nekkee ci stage dérive yi waruñu bett lii dama ko xaaroon bu ma ko xaar bu ma ko xaaroon bu ma ko gisee mooy avant tout ñu xam ne amuñu président de la république digne de son nom Bassirou Diomaye fay moom la Sénégal élire mais il a assuré par intérim notre vrai président de la république mooy waajooju nga xam ne dama araamal turam ci sama ci sama gémmiñ wala tax bëgguma tudd turam mooy waajooju nekkoon Sweet Beauté mais nag ma ñëw ci ki nga xam ne moom la ñu arrêté un homme d'état un homme généreux un fils digne de son pays c'est un pur produit du Sénégal jaar fu ne jaar fu ne ci Sénégal servir réew mi bu àdduna bépp xam ko mais nag juumuñu xam nga lu tax juumuñu moom moo leen jaaxal à quelques à quelques jours des élections moom Lat Diop moomu nañu ne pour ñu am lu ñu bëgg faw ñu éliminer ko suñ ko éliminer rek duñu am lu ñu bëgg looloo tax ñu kii ko mais au lieu ñoom nee nañu réduction des comptes ñun waa kër Lat Diop ñun Lat Diop ñoo gën a d'accord ci réduction des comptes ndax xam nañu ne Lat Diop dignité bu mu am au lieu mu mu mu mu jal mu lekk alalu réew mi moom dafa jëriñ réew mi mais li du réduction des comptes kii du réduction des comptes kii dañ koo def pour régler ay comptes des comptes politiques réglement de compte la mais nag ñu ngi lancer un appel à l'opinion nationale internationale ñu veiller au grain sur le Sénégal parce que ci fan jamono yàlla ci passé avant lii laa njëkk a wax ne man lu ma gis ci Sénégal lu muy fonctionner il y une dictature en téléchargement te loolu soo liiree euh, euh, intervention Bassirou Diomaye fay nga xam ko nga ñëwaat ci Ousmane Sonko avant avant président di dogal Ousmane Sonko mooy wax te moom il n'est pas moom du moom mooy mooy mooy porte-parole présidentiel il n'est pas habilité sur ça c'est un premier ministre boo xam ne amul pouvoir na ci yem mais nag en revenant sur Lat Diop ñoom nañu xam ne téye Lat Diop man jàpp naa ne sax mënuñ ko téye parce que luñ ko téye ñëpp xam na ñoon ay tappale la digante ñaari citoyen sénégalais la kii moo porté plainte lan moo tax avant ñu koy avant ñu koy déglu woowuñu confrontation te pourtant ku nga xam ne moom la dajal dem na te ñoom am nañu ay ñoo xam ne defuñu dara ñu bëgg a tukki ñu téye leen kon lan moo tax ñu bàyyi ko mu dem et mu bàyyi fii loo xamante ne ni moom moo ko causé lan uyee la problème ndax daa farak camp bi te dëgg la ab sàcc la moom moom ci boppam moom mi nga xam ne mooy porte plainte mooy ab sàcc la ak ñum mu àndal vingt millions par mois ñu xool affaire yi nga war a fay deux milliards combien de fois cent fois cent cent fois vingt millions nga koy sàcc réew mi kooku dem indiwaat ko ñooñu Sénégal ñii gouvernement bi dañoo waroon a woote ab ndaje sargal le président Lat Diop sargal le président Lat Diop pour ngir imi réew mi sàcc boo sàcc bi nga xam ne moo doon sàcc alalu Sénégal di ko yóbbu mu ne ko niib ci loxo ne ko li nga doon sàcc mënutul dem mënutul dem indiwaat ko ci réew mi loolu kooku soo ko woowee ngir sàcc boobu loo soxlaa réew mi mais nag juumuñu parce que dañoo xamul fu ñu jëm dañuy lambaatu dañuy lambaatu dañoo tële man sax maa ngi naan est-ce que ñoom dinañ fi am cinq ans parce que géopolitique bu ma gis nii est que Ousmane Sonko du ko yóbbu Euh, assemblée nationale ñoom seen diggante am tiraillement ñu ñu ñu ñu organiser des élections sax anticipées parce que jàpp naan ne réew mi fa la jëm parce que ñii xamatuñu fan lañ jëm ñun tey la ñu gën a doon ay Lat Diop tey la ñu gën a doon ay latiste jusque jusqu'à l'extinction du soleil latis ay ay ay ay latis dañuy yokku waaye duñu wàññeeku léegi bu may ñëw lañ ma signalé ne benn sama suñu benn correspondant boo xam ne mu ngi nekk Ziguinchor xamul sax Lat Diop mu ngi ànd ak délégation di ñëw fii léegi lañ ma signalé ne am na benn waay bu ñuy wax bal Balde mu ngi ci Kolda léegi nee na ma mu ngi ñëw léegi léegi rek bu ma woo neen maa ngi toloo Kaffrine te délégation la àndal kon Lat Diop nañu xam ne ñoom laal nañu nit laal nañu sidiitu réew mi sidiitu réew moomu nag su fekkente ne dañoo bëgg a dagg si diit réew mi pour toroxal Sénégal nañ ci taxaw loolu lañ bëgg lak Diop ku ko dugal fii ne la wóor ne noonu réew noonu Sénégal nga ak képp ku lay jàppale ma jeexalee ne kilifa diine yi ñoo ngi leen di woo ñoom ñëpp parce que lii suñ ko seetaanee ba liy jàll musiba lay julal réew mi en plus les hommes politiques ñi nga xam ne ni ñu ngi ci opposition bi seen taxawaay dafa waroon dëgër fii parce que wóor na leen ne Lat Diop moo leen jaaxal mais ponkol moomu nee nañ suñ ko jàmmee na ko karaj fu ñu bëgg a dem dinañ fa àgg ñoom nag nañu xam loolu suñ rombee Lat Diop fu ñu jëmati dinañ jàll mais nag fii pour ñu jàll mooy problème bi parce que Lat joob nag du ko ñuy saraxee dafa am ay ay jigéen dafa am ay mbokkam dafa am ñu nekk ci moom léegi daal ñoom xam nañu lii c'est des questions politique politicienne kese la loo xam ne Ousmane Sonko moo nekk ci ginnaaw waxuma Diomaye parce que Diomaye du président de la République il a assuré seulement l'intérim parce que parce que il a manqué la la crédibilité la ñoom amatul yaa amatuñu yaakaar ci moom parce que un président de la république bu signé décret décret signé ko ci loxo bu Sénégal jël kadom wax ko ci turu Sénégal ba pare mu nax saay ci joomaay laa ko la laa ko gisee lu ma ko waxoon maa ngi koy waxaat soo moytu il sera le premier président à juger par la haute cour de justice fii ci Sénégal je vous remercie mu nekkoon la coordonnateur bu euh, Touba ba léegi rek ñu woy ci réaction yi ñu bàyyi la nga wax ñu tur beeg bi ak euh, fan nga jógee man falu Sow laa tudd euh, dëkk euh, Sam Notaire Géejawaay. Euh, ko. Mhm. tey kii nga xam ne moom mooy Lat Diop nekkoon nekkoon ministre des sports. Mhm. directeur bu LONASE. Mhm. ñu wax ci loolu déjà accusation yi. comme ni ko Sénégalais yëpp constaté ay accusation yu gratuite la. ay acharnement la ay chasse aux sorcières la ndax xam nañ ki amal affaire mooy kan xam nañ ne c'est un administrateur koo xam ne il a beaucoup beaucoup servi comme international que national gis nañ ne fi mu jaar ci ay institutions les plus grandes ci monde bi muy euh, banque mondiale mu nekk fa gouverneur suppléant liggéey fa liggéey bu mucc ayib ñëw liggéey au niveau de la CEDEAO ñëw liggéey au niveau de la BAD la Banque africaine de développement kooku foofu mu jaar ba bi mu ñëwee aussi au Sénégal fii liggéey fi au niveau de de du ministère du budget de du ministère des finance mu nekk fi directeur des investissements nekk fi directeur général de la LONASE nekk fi ministre des sports xam nga ku jaar fii yëpp ñu xam xel ne ñoom lépp loo xamante ni ñu ngi koy jiim di ko natt ci moom mënuñ cee jot. ndax moom pare na boppam ñu xam ne foofu fu ñu fa jaaree duñ réussir ñu ne léegi xaaral ñu créer benn affaire boo xamante ne ni qui ne repose sur rien du sax li gën a jaaxal Sénégalais yëpp mooy amul benn d'après ñoom li ñu expliqué un présumé corrupteur yow euh, un présumé euh, ñu ko wax sax waaye euh, corrompu ñoom ñu ne dañ koy entendre dañ koy mettre en garde à vue mais le corrupteur lui on lui laisse euh, libre circulation muy dem yoonam déjà loolu moo amul fenn amul fenn ci sa ci àddina loolu Sénégal la te ku xool aussi ne loolu buñ ko bëggee bàyyi déjà mu wéy mooy euh, tout citoyen ku mu neex rek un jour il peut se lever un jour rek xool benn directeur wala xool benn ministre accuser ko après kooku ñu bëgg naat bi moom moom moom mu dem yoonam loolu ñëpp xam nañ li ko lal mooy on a un gouvernement nul on a un gouvernement médiocre xam nañ ne a seulement six mois les sénégalais ont constaté que ne lii jëmul kër xam nañ ne aussi au niveau de la l'Assemblée nationale moom mi nga xam ne mooy Ousmane Sonko moo yey bañ a dem ba créer lii lépp ndax xam na ne ça ne marche pas bu demee amul lum teg bu dee projet la ñu wax y a pas de projet Sénégal gis nañ loolu mu xam loolu ñu dem créer seen pôle judiciaire financier la xaw ma xam ne reposé ci dara lu dëgër élection yii nga xam ne mooy seen sànni tàcc. ndax xam nañ ne buñ ko perte ndax mënuñu ko mënu mënuñu am majorité il va falloir que léegi ñu ñu ñu jiima xool ku mel ni Lat Diop nga xam nag doole ji mu am au niveau de Guédia au niveau national comme gis nga niñ ko déggee tout à l'heure les les nga xam ne fa fenn fu ci nekk ay nitam a nga fa léegi ñu xam loolu mu ne léegi xaaral ñu jël ko créer ko ay problème nëbb ko su ko defee léegi xam nga géejawaay foofu mu xaw a au niveau national fépp fu doole fu fu am doole Lat ñu ñu ñu ñu ñu rësal je lance un appel à la jeunesse sénégalaise man jeunesse bi laay gën a parce que l' avenir appartient à la jeunesse gis nga nit ki du la nax di bëgg la continuer di la nax nga ànd ci mu lay nax gis ngeen li xew ci marchand ambulant yi gis ngeen li xew à Azer gis ngeen li xew ci ministère euh, euh, bu Cheikh Dieng bi bu ONAS bi bu bu Cheikh Tidiane Dièye d'ailleurs sax moom je demande sax pourquoi ba léegi démissionné wul mais xam nga loolu grandeur la pour nga démissionner ci yu mel ni da ngay nekk grandeur pour pouvoir le faire li may wax mooy jeunesse bi na ngeen génn taxaw bañ bañ ñu leen di dugal ci loo xamante nii du leen arrangé fi ne nii te Sénégal gi may wax lépp a yokk lépp yokk amul dara lu yomb li ma bëgg nag mooy à part d'aujourd'hui nii ñu libéré ko mu ñibbi këram libéré Lat Diop libéré Lat